mun nañu ni Fatou Bintou dafa topp nag di daw si benn risque bu énorme risque boo xamante ne mun na see perte li nga xam te moo nekk viwam mais nag sama gars yi est-ce que xaritam yi ko seetaan si loolu est-ce que ko bàyyi mu daal di egg fi nga xamante ne moom la jëgteel nii ba tax na nag pour l'instant kii di Fatou Bintou moom xamul lan la war a def moom daal leen rek la bëgg muy am doom ba tax na nag refusé na li nga xamante ne moom la ko Khalil proposé pour avortement bi mais nag les gars Khalil lu mu def muy dal di yónni ki nga moo nekk Leila pour mu avorteloo ki nga xam te moo nekk Fatou Bintou sama gars yi loolu noonu d' accord ngeen si wala d' accord leen si ñi nga xamante ne d' accord si nañ laa si commentaire yi wax nag la moo tax ñu ne d' accord si man nag euh, d' accord naa si carrément ndax euh, yaakaar naa xali nag euh, li mu nekk di def nii pour avertir li nga xamante moo nekk soxnaam am na si droit carrément ndax moom su ko neexee ne sama soxna moo ma gënal doom bi di waaj ñëw te dombi gars nag doom bi nga xamante ne mooy waaj ñëw ay risque kese la nar indi si gàlle bi ndax mun nañ ni moom la wala nak ki xamante moo nekk Fat Bintou te sama gars yi man bu doon man sax ak bu doon keneen xalaatuma jël risque boobu noonu mën naan damay bay sama jabar muy xaar nak dom bo xamantene mën nako na ray boba avortement direct sans discussion mais nak sama gaay bu doon yeen niveau bobu ngeen tollu na ngeen di doxale ak seen soxna bu dee jigen la na nga doxale ak sa borom kër ndax mën nañ ni far bintu nak jigen ñu bari and nañ mom mais mën nañ ni far bintu jigen ñu bari andu ak mom ndax so xolé nak situation yi ni ñaari kan la ñi and ak far bintu ak ñi nga xamantene andu ak mom mais nak sama gaay far bintu mo ngi jël risque bo xamantene am bay ñakala la dund mbaa dee euh, pour l'instant mu ngi si nar dem nak ya ba eh, seus mais ya des risques là-bas et nak soo maytul yàlla dimbali ko ndax eh, peut-être au début defoon na miracle peut-être il va encore faire du miracle moo sama gaay yi na ngeen patienter rek xool épisode dernière bi nu muy demee li nak annonce analyse le won ci eh, série Babel episode 64 jaa jëf les gars one love